bi waaye Sa Thiès Eumeu lan nga ciy wax ak lan nga ci gis ci combat boobu. waaw Sa ama Eumeu Sène boobu combat lan laa leen waxoon nee naa leen dinaa génn ñëw indil leen lu leer naññi tagal leen ko ci taabal laajte nga nag question boo xamante ni maanaam askanu Sénégal ñi may déglu askanu Sénégal ñi may woowee fépp Ibrahima Khalil Laye loo xam ci làmbu Sa Thiès ak ñuy wax mooy Eumeu Sène tey nga ñëw indil ma ci loolu loolu damay siy tontu ba mu saf sap danaa leen wax ne leen bu kenn pirate vidéo bi toog leen ngeen seetaan ma indi lu leer naññ daa leen koy tegal ci table bi ñëw ngeen ci Ama Baldé ma indi verdict na leer ngeen ñëw ci Eumeu ngeen ñëw ci kan ci Boy Niang Modou ma indi verdict bi mu leer ngeen ñëw ci kan ci ci ci ci Zarko uh-huh. Bébé Diène ma indi ma indi verdict bi mu leer kon uh-huh. tey jii bu ma ñëwaatee nga laaj ma si Eumeu seen Sa tey ma yëngal town bi tey ma yëngal dëkk bi nañ dem. waaye ci biir loolu combat bi dañoo bëgg xam kan lañ ci jekkoogum pour l'instant ak kan moo yor ndam li pour l'instant lañ bëgg xam. combat bi combat bi am na ci koo xam ne nii bu ñu yaakaaree ne dafa ñëw di foyee combat bi ñi ngi nax boppam. Mhm. biddiwam dem na ci dëkk. Mhm. boo xam ne ay làkkat ñoo fa nekk. Uh-huh. waaye la mu yor ba su combat bi ngeen xam ne kii foyewul combat bi. Uh-huh. waaye dama ni combat bi jamono jii ñu nekk nii. Uh-huh. gars yi ñi ngi ci liggéey bi. waaye dama gis ci mbër moo xamante ni. na moytu deret ji muy tuur foofu. parce que ay tuuram mi ngi biir këram. mu ngi biir këram. waaw mi ngi biir këram. li may wax mu ngi may dégg. ay tuuram mi ngi biir këram. mi ngi biir këram. waaye lan lañ wax Sa Thiès Sa Thiès biddew la. Mhm. waaye dafa am lu nekk ci kanamam nag la mu war a jëli. waaye na moytu bu baax a baax baax a baax baax a baax a baax mhm. ndax <laughs> nag bu mag du yàq mboob de. du yàq mboob nag bu mag. du yàq mboob de xam na mboob na def très attention si combat bi. te waaye Sa Thiès seen seen ginnaaw am nañ xeex. ginnaaw Sa Thiès kenn Sa kese bëriwul de. Ah. ginnaaw Sa Thiès am na xeex. am na xeex. na xoolaat encouragement bu baax a baax baax ci làmb ji. Mhm. xoolaat encouragement bu baax a baax a baax a baax a baax ci làmb mhm. bu ko deful bu ko deful. Mhm. Hmm? dina doy waar. waaye côté Eumeu Sène. waaye côté Sa Thiès laay ñëw ba tey. waaye dafa nekk ci yoon boo xamante ni. nee na day bëtt dem. waaye biddiwam jamono ji am na fu mu toll de. te la muy xëcc di ko jëli. fa mu bëgg a dem foofu noonu fu la mu bëgg a jëlee daal di koy indiwaat ci kër gi na am beneen taxawaay bu mu taxawee. waaye jamono ji saates dafa am sarax yoo xamante ni naka def si xëytalu weer wii ñu nekk. ay xëytalu weer wii ñu nekk. weeru koor weer yi mois de mars bi. buñ ci génnee. bu ñu duggee ci avril bi ba mu am fukki fan ak juróom. Sa Thiès dafa sarax bu mu def. waa sarax boobu yow xam nga ko. déggoo li ma la wax dama ne xëytalu weer moom mi may dégg xam na làmb mu ngi may bu baax a baax a baax li may wax nii moom dina ko dégg dama ne xëytalu weer wi bu weer wi amee bu avril bi amee fukki fan ak juróom xaaju weer wi Sa Thiès war na def sarax. allahu akbar. waaye combat bii ñu taxawee nii combat njëkk jël la. <laughs> jëkkante la daal <laughs> maanaam jëkkante la. combat njëkk jël la. wallaahi. combat bi combat njëkk jël la te kenn du ko dindi. maanaam ku jëli sa moroom wala lan. njëkk jël la rek <laughs> njëkk jël. gaay yi xam nañ li may wax ñi xam làmb xam li may wax mbëri yàgg dugg si àll bi yàgg dem si mystique ah mbëri xam nañ li may wax combat bi njëkk jël la de. Uh-huh. <laughs> waaw waaw. tey kon de ku njëkk jël. ku njëkk rek yaa ko ci diggante Sa Thiès suuf laay dalee waaye Sa Thiès. Mm-hmm. na def tere attention ci combat bi bu baax a baax a baax a baax a baax. waaye mu xool encouragement am xoolaat lépp. waaye ndam li may gis. Mm-hmm. ndam li may gis. Mm-hmm. ah. ndamu tàkkusaan la. ndamu tàkkusaan la. waaw saraxu tàkkusaan. saraxu tàkkusaan. bu ñu noddee cinq heures. barki Seydina Muhammad sarax bi ñoom ñaar ku ci da ngay am ndam. te sarax bu xam nga ko. saraxu tàkkusaan la ji du saraxu timis de saraxu tàkkusaan la. waaye ñoom ñaar ku ci ñëw ci yow nga jox ko sarax. ku fi ñëw si ña man woo ma taal otoom ñëw ba si man ma jox ko ma jox ko sarax. te bu ko génnee incha allah yàlla may ko ndam. incha allah rabbi. parce que rawaan bi tàkkusaan lay jóg. Mm-hmm. jugul timis de. tàkkusaan cinq lay jóg. te dafa am mbër moo xamante ni buy toog na toogee fi mu war a toogee. Mm-hmm. bu ñu xuloo bu ñu xeex am na mbër moo xam ne buy coow di daanu. waaye ginnaaw loolu ñu ñëw ci côté Eumeu Sène parce que ba tey nag waxaguñ ci Eumeu Sène. waaw. boo mhm. xam nga Eumeu Sène dafa am benn côté boo xamante ni bu ñu yaakaar ne bëre bi bëre gaa yi bu ñu yaakaar ne bëre bi bëre bi combine la de bëre bi kuñ ci daan dañ la war a daan du combine de. Mhm. bëre njëkk jël la. kenn mhm. ku nekk nax sa morom. li ñuy woote noonu. kii naan maa ko fekk fii kii maa new fi. Mhm. te bu arbitre ciblé ko gis. Mhm. muy Eumeu Sène muy Sa Thiès. Mhm. lii du combat de wala combat combat boo xamante ni dañoo ñëw pour pour complot ko de xam nga gars yi nee nañ Reug Reug Bombardier complot la. waaye bii combat du combat complot combat bi dama ko seet ba mu leen nañ Eumeu Sène kilifa gu mag moo ko ngemb jamono ji Eumeu Sène fooyewul combat bi ama seen ñëwul pour daanu na Sa Thiès xam loolu de. Uh-huh. Sa Thiès bu mu naagu de. Uh-huh. bu naagu bu mu naagu waaye ama Sène mii ma gis ni mu taxawee ak ni muy nekkee wallahi ñëwul pour daanu waaye Sa Thiès bu ko Eumeu Sène dama ne nag bu mag du yàq mbopp. yàq waaye am na ci sarax yoo xam ne nii Eumeu Sène moom na ko def. waaw. bu ñëwee ci yow nga jox ko sarax. Eumeu Sène ngemb gii muy indi. ngemb gi muy indiwaat. ngemb séeréer la. allahu akbar. te dinañ ko gis. Sa am na kilifa gu mag. goo xam ne dëkku fi. moo ko indi. moo koy indi ci mooy indi Sa waaw. allahu akbar. di ngeen gis nag. mystique yoo xam ni. mystique ku cosaan. làmb làmb mystique ku cosaan ñooy ñëw waaye njëkk jël la ku njëkk si ñoom ñaar làmb ji ku si njëkk bu ngay da nga koy foqat làmb làmb foqet la de barki Seydina Muhammad waaye waaye ñoom ñaar mystique mystique yi ñoo tolloo wala ñoom ñaar am na ko ëpp ma la wax làmb ji làmb foqet la bu ñu jël yëpp teg ko ci mystique nañ dem ci ñaanu kurus yi làmb ji da si am yoon de mhm. làmb ji ñaanu kurus da am yoon ñaanu kurus dëgg dëgg dëgg diggante saa Eumeu Sène ñaanu kurus ta si am yoon. Mhm. waaw te saraxu ñaanu kurus yi ñu ngi koy génne à partir de cinq heures daa war a fekk sarax yi génn. lamb ji lamb la. ku ne la kii daan wala kële mooy daan waxul dëgg. Mhm. waaw lamb ji lamb fukket la. barki Seydina Muhammad lamb ji du tuur deret lamb du sëf lamb du du ay du ay du ay fode làmb ji làmb foqet la ku la gën a am ñaani leer gën la ñeme kurus yi mais mais Sa Thiès dafa mel ni ci Modou Lo la teg bëtam waa xam nga xam nga Sa Thiès moom champion la mën na bëreeg mën na bëreeg mbër mu ne si at mhm. Sa Thiès champion la Eumeu Sène champion mhm. Eumeu Sène champion la Sa Thiès champion la Sa mbër mu mbër mu nekk mën na bëreeg parce que biddiwam toll na foofu jamono ji mhm. amul mbër mu mënta bu sëgg bëri Mhm. waaw Sa Thiès moom mbër mu mbër moo xalaatee lamb ji bés dina ñëw ah, di ngeen dinañ sëgg ñoom ñaar parce que Sa Thiès bi toll na foofu ba tamit biddiwam toll na foofu turam toll na foofu waaye Eumeu seen tamit dafa am fu mu jaar ci ay ndaanaan mhm. Eumeu Sène ndaanaan yëpp bëri na ak ñoom mhm. kon nag hmm? mais lamb ji booy seet Sa Thiès moo ko gën a soxla Eumeu Sène waaw xam nga xam nga Eumeu seen amul dara lu muy pauvreté si lamb parce que Eumeu Sène jël na des arènes kon Sa moom moo war a ñëw wane boppam mais ci wane boppam boobu. na mhm. tey def nànk rek. Uh-huh. waaw na tey bu baax a baax a baax a baax a baax na dal. na uh-huh. tey bu mu waaxu combat bi bu mu ko jëlee doole bu mu ko jëlee fit. parce que làmb ji may gis nii barki Seydina Muhammad làmb foqet. Uh-huh. kurus a koy daan ku ku ëppale kurus ku ëppale si ñoom ñaanu kurus yaay daan. yaay daan. ku si ëppale ñaanu kurus yàlla may na ndam. Mm-hmm. man maa la ko wax. incha allah te combat bi nag <laughs> buñ ñee kirtim buñ ñee kirtim. waay uh. lay la laaw. <laughs> baalu ñu xam ne lépp la. Uh. allahu akbar li ma leen di dénk daal mooy. jouru combat Eumeu Sène Sa mbooloo mi dina bari benn mystique bi dina bari ñaar mais mystique bi cinq heures la yam li des kurus a kay moo mm-hmm. loo sangu sangu sangu sangu balaa ngaa dem ci làmb ji xamal heure Sa Thiès am na heure boo xam ne bu ko dem stade Eumeu sen am na heure boo xam ne bu mu ko dem stade. Mm-hmm. waaw parce que làmb ji doonul làmb joo xam ni làmb timis la wala mën nañ faa nekk nag ba vingt et une heures wala ba dix heures ñoo xam ban temps la ñuy sëgg ñoo ko xam. Mm-hmm. mais làmb ji la cay la cay gën a baax. saraxu cinq heures yi si la bokk. Mm-hmm. ji chiffre lan la. chiffre cinq. chiffre cinq la. waaw allahu akbar moo tax ma ne la saraxu cinq heures ñaari mbëri ku ko si xam incha allah ci kàttanu yàlla dara mënu laa tee gañe làmb bu soobu yàlla mbokk yi ñoo ko déggandoo am na solo macha allah ñu nekkoon ci li nga xam te ni mooy làmb ji sëriñ bi nag wax na ci wax bu am solo joxe ci affaire yu am solo li ko ci intéressé mooy jàmm ji ak képp ku nga xam te ni wóolu nga ba ñëw mu ñaanal la ci defal la jàmm loolu la ñëpp di ñaan donc kon gars yi ñoo ko déggandoo li ñu desewoon ci waxtu bëriwul lan ngay tëjee lan ngay. mooy dama am loo xamante ni dinaa leen ko wax dinaa ñëwaat waaye bi maa maa ñëwaat ci combat boobu day jegewaat man li ma gis li ma seetagum génneel naa leen ko tegal leen ko taabal ji waaye xaar leen Ibrahima Khalilulaay lam leen waxoon dinaa ñëwaat ci diggante saa kees mhm. ak Eumeu Sène dinaa leen ko toppat mhm. dinaa leen ko toppat mhm. ba jour si incha allah rabbi te lépp loo xamante ni génn naa ko amul maara buy génn di ko dindi amul kenn kuy génn Sénégal dindi man li ma wax man Ibrahima Xalla te incha allah rabbi naa leen ko toppal bu soobee yàlla. Mm-hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Ah,